di sant Serigne Touba Cheikhul Khadim Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul di jaajëfal maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Babul Mouridine di ñaanal Cheikh Mouhamadoul Mountakha mu xalifa général kullu murid sun borom subhanahu wa taala yàggal ko fi lool ci barke alxuraanu karim ak mboolem jullit ak képp ku di taalibe di sant bu baax sama ñaari wayjur ak mboolem kum amaasa xamala awaraf ci sama diine ñaanal sama wasila cheikh mohamadul moxtaar mbakke ibnu serigne cheikh awa balla ana ko fi yalla yagal te wéral ay cëram naka noonu no ngi rafet lu jotaay bi wërte di ci am mbégte ni ñaan yalla suñu borom subhanahu wa taala lépp lu ne fi ñaan rek mu nangul nako defal na ay ngërëm di jaay cheikhul seexul xadim gëna soñe ci ndigal bu baax te jiital sama bop no xamne lepp lu ne fi wax ak ci rek lañu ci am ay xam-xam bi matiwu ko waaye am lu bu wër su ko defé kon dañuy tànn ñi nii àndal ak ñi nuy jaxasool ndax kat li ëpp ci nit ñi doo ñu doonu ñu ñu ñu war a jaxasool rawatina nag ab taalibe ndax noonu ko alxuraanul karim di waxe rek ak sarat naa si laa yaxla moo na yeneen i ak sara yu bari yoo xam ne day wax rek ne nit ñi li gën a bari ci nit ñi nekkuñu ci li seen borom subhaanahu wa taala gërëm rawatina sëriñ bi loolu moo tax nu war a wattaliku bu baax nit ñooñu nga xam ne jëmunu fenn ndax seen i jikko baaxul te seen i pas-pas baaxul te nangu woonoo liggéey te foo leen fekk seen i wax day gën a bari lool seen i te doomu aadama dafa gaaw a jeexital ci moroomam te bu fekkee ñi ngay jaxasool addina ak bànneex ak i caaxaan rek mooy nekk ci seeni bopp te bu yàggee dañ la koy mën a wàll ci lu wér ndax wàll gi dafay lu sew a sew loo xam ne yow mi ñu koy wàll mën nga koo bañ a yëg mbaa sax doo ko mën a bàyyi xel te fekk ne jël nga ci ñoom lu bari waaw lu baree baree bare ba tax na nañuy setantal bu baax ñi nuy àndal ak ñi nuy jaxasool muy góor ak jigéen mag ak ndaw te am ak farlu bu baax ndax doomu aadama mënta joxe lu mu amul ndax koo mën a àndal lu mu am rek lay lay daal di mën a jox su ko defee muy koo xam ne boo xamul dara rek lu dul addina toppul dara lu dul bànneexam addina rek la lay daal di mën a xamal tey bànneex rek la lay daal di mën a topp lool wala yaasu billahi te lan la ci suñu borom subhanahu wa taala musal naan boole lii wowal ab xol te bànneex képp ku ko topp daf lay dëdduloo yoonu yàlla subhanahu wa taala rawatina li sëriñ bi di digal moo tax alquran ne la wala tattabi al hawa fa yudillaka an sabilillahi waruloo rus kenn la ngay ragal kenn ba tax ngay nangu mu lay yóbbaale ci lenn loo xam ne dëppoowul ak ngërëmal yàlla sunu borom subhanahu wa rawatina sëriñ bi ndax moo gën a yey ci yow nga di ko sàkk wala ci ngërëmal keneen ba tax na kon nanu lu baax ci ndigali sëriñ bi ñu jëfe ay ndigalam di bàyyi ay tereem ndax loolu moo gën ci nun leneen lu dul moom te gën a moytandi ko bu baax naka noonu xam ngeen ne képp ku baax ku fi mas jaar ci gaa yu baax yi rek yàlla sun borom subhanahu wa taala tànnan na la askan bu baax bu kenn dul am lu muy xebet ndax doomu aadama su mbokkee baaxee dana waral ñu séentu ci moom ak mbaax naka noonu ba tax na loola waral sayyidatuna Mariama ba ko mbokk yee yedd defe ne dafa mooy yàlla suñ borom subhaanahu wa taala la ñu ko wax mooy sa baay ak sa yaay xamuñu leen ci ay caaxaan maa kaana abooki imraa sawin wa maa kaanatu ummuki baqiyan waaye askan wu ban dana waral kenn du ci séentu doom yu baax loola waral nooxu ne yàlla subhaanahu wa taala innaka intasarhum yuddiloo xibaadaka wala yallidoo ila faajiran kafaaran suuf si boo fi bàyyi yéefar yi danañ réeral sa jaam te duñ fi jur ludul doom yi saay-saay rek naka noonu baaxi bokk dana waral tamit fu sa jëf mënta egg ñu ñu àggal la fa waaw da dana waral nga am ci seen barke lu sa jëf mayul ñaari xale jirim yooyee baax gu seen bàyyi baaxoon wala seen maam baax rek ka tax yàlla sun borom subhanahu wa taala xiir xudar mu yëkkati sàkkeli wa bañ gis fa wa amal jidaaru fa kaana li xulamayni yatimayni fil madinati wa kaana taxtahu kansun lahuma wa kaana abuhuma saalihan fa araada rabbuka an yabluha asadahuma wa yastaxrija kansahuma rahmatan min rabbika baaxi bokk day tax waral fu si jëf mante gi nga yeggal la fa boo góorgóorloo wala si na amano wa tabaxatuhum suriyatahum bi imaanin ala qanaabihim suriyatihim wa ma alatnaa min amalin min sayin maam Cerno nag radiyallahu taala anhu ma yàlla suñ borom subhanahu wa taala tànnal na ko ñaari askan gi gën a ràññeeku ci réew mi muy askanu Mbàkke ma maaram ak askanu Koke mboolem boroom xam-xam yi ci réew mi ak wàllu yi ñaari nit ñi lañu sasoo ba tax na maam Thierno mi ngi gane àdduna yor yorub alxames di fukki fan ak juróom ci weeru gàmm 1862 ci dëkk bu ñuy wax Poroxaan waaye daa dajeeg ay wëjëram di tuxoo Poroxaan ba tax na ña nga ko ngéntee Njaabakunda te it loolu a waral am ñu defe ne fa la gane àdduna moom ci la mam Balla Sall faatu at momu mu tollu ci mom moom la ñu Serigne Touba xaada la lu makhtar loolu batay ci la mam Balla Issa faatu way juróom bu goor mi ngi tuddu Mamor Anta sele mom mam Balla Issa mom maam Maram way juróom bu jigen mi ngi tuddu sohna Faati isa mom jage isa mom Madu faqudja naka nonu maam Ceer radiyallahu taala anhu ak toroxlom sunu borom subhanahu wa taala neena gën gën gi ويزو بير جلد نيلا توب وفد جنة حكا لمن أتباهك من المؤمنين مدل واحد ولا تساهل قدك للناس معنى بل ريري لكنين داري كون ولو كنت فاسا خالص الخلب لن فدوهم منيكو شعدونهم كنيات كن نقري درن كن نيفي يو نيب دانن دم باي لفي باتخلا سرين توبا خاد الله لو مغتار الله نيلا معنى يريون ba tax na Serigne Touba xaadalaahu taaral xataarallahu nii la yare woon maam Thierno gis nga bi mu ko naa rummi tawadduhan li kullil muslimin tanjihum bila taraddudi min tollami jullit bi nekk na nga ànd moom ci toroxlu kon amul sikki ne da nga mucc ci ay lëndëm dëndëm ba tax na daawul te mukk ub toll mi ngi ci bitti di koy wër te léeg lekk su waxtu jëfandikoo dikkee ci pencu mi fa lay jëfandikoo bokk nit ñi te buy lekk ci suuf lay toog ni ko yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam noonee la daan defee la daan bokk ak mbooloo mi ku ñuy wax Abdullahi ibn Basri radiallahu taala anhu mu ne nee na yonent bi sallallahu taala alayhi wa alihi wa amoon na ndab loo xam ne alxaraaw lañ ko daan woowee ko defee xam naa dañuy bañ a guddal jataay bi rek xam naa ñu ngi jégalu ñëpp di jégal ñaan yàlla jàmm ci adduna bi di ko ñaan ci réew mi yàlla na ko yàlla defal te boole ñu ko ñëpp ci barke alxuraanul karim ci bis bu bi di yawmal jumaa wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf wasalaamualeykum wa